Euh, ñu ngi lay nuyu euh, monsieur Dione. Euh, ñu ngi lay fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal tey kii di El Hadj Abdourahmane moom mooy directeur général bu association sénégalaise de normalisation monsieur Dione tey jii nga xam ne mooy bés bi ñuy màggal lii di normalisation ñu bëggoon a xam lan mooy liggéey boobu lan lan la wundu. alors balaa yeewaat waa Rewmi FM ci euh, li ngi ñu may ñu mën a euh, waxtaan ak askan bi ci liggéey bi ñuy def euh, normalisation nag boo ko déggee mooy maanaam liggéey bi nga xam ne moom mooy càmbar bépp secteur d'activité maanaam lépp lu ñuy def muy ay produits yu yu jaay muy ay ay yu ñuy jëfandikoo donc normalisation mooy càmbar Euh, saytu euh, jéem a génne euh, dégg règle yi nga xam ne moom moo war a encadré loolu mm-hmm. maanaam produit bu baax nan la war a mel lan moo ci war a nekk lan moo ci warul a nekk nan lañ ko war a defaree ak nan lañ war a doxalee échange ci diggante ñiy joxe ñiy jaay ak ñiy jënd. Mm-hmm. lan mooy rôle lan mooy taxawaayam. alors ci ci liggéey boobu noonu moom mooy permettre tey. Mm-hmm. boo demee ci marché bi. yow mi nga xam ne euh, waaye jëfandiku nga maanaam consommateur nga mhm. euh, norme norme norme moom moo moom moo la mën a may euh, nga mën a ràññee produit bu baax ak bu baaxul dégg nga mhm. ñi nga xam ne tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy ay producteur tamit moom mooy permettre lu ñuy wax concurrence saine maanaam ñëpp ñu nekk ci benn ci benn domaine xaw mën a laa mën waxee domaine ci ci ñëpp ci nekk ci benn domaine. Mm-hmm. di defar benn produit ñu bokk même règle yi ñu war a suivre. Mm-hmm. loolu dina tax ba ku ci nekk ci ñoom boo bëggee defar produit bu ba am qualité maanaam effort yi ngay def moom mooy tolloo ba tax na bu ngeen demee ci marché bi. Euh, concurrence bi di mën a di mën a seen. tey jii association boobu nga xam ne euh, yaa ngi ko jiite nan ban taxawaay lay taxaw euh, ci liggéey boobu. taxawaay bi mooy déjà. Euh, ñun li def mooy dajale euh, ñëpp ñuy yëngatu. Mhm. ci secteur d'activité bu mu nekk. Mhm. dañ leen di dajale ci li ñuy woowee ay comité technique de normalisation dajale fa euh, consommateurs yi dajale fa producteurs yi dajale fa ñi nga xam ne seen seen xam-xam dafa màcc ci ci domaine boobu lool ñoom ñëpp ñu dajale leen ñu àndandoo xalaat sottante xalaat fexe ba trouver consensus maanaam. Euh, déggoo ci règle yi nga xam ne moom lañuy ñuy teg pour encadrer domaine d'activité boobu. Mhm. loolu loolu pour ñu def ko am na ay outils utiliser ñun pour euh, maanaam yombal euh, consensus boobu noonu. Mhm. loolu moom mooy loolu moom mooy liggéeyu liggéeyu normalisation. Mhm. te buñ ci paree nag dañuy lëkkaloo ak ak nguur gi organisme gouvernementaux yi. pour wan pour yenn secteur yi. ñu jël wan leen yenn normes yi nga xam ne dina leen permettre ñoom ñu defar réglementation bi moom mu gën a bu amee euh, benn ñoxor njaay bu jóg. Euh, nekk ci euh, wàllum exemple agro alimentaire bi nekk ci mim réew bëgg jaay produit am ci mim réew ndax yoon la walla obligation la mu mu aligné ci normalisation ci norme yooyu nga xam ne association bi da koo teg. boo bëggee maanaam Sénégal dafa organisé soo bëggee euh, yëngatu ci wàllu defar lu ñuy lekk wala lu ñuy jëfandikoo wala jaay ko. Mm-hmm. am na am na ay procédure mm-hmm. euh, procédure yooyu boo demee fi ñu woowee direction du commerce intérieur ñoom ñoo koy gérer. Mm-hmm. waaye ci biir procédure yooyu daf cee bokk defar ay produits yu mucc ayib te produits yu mucc ayib yooyu li ñu koy mën a wan mooy norme yi ba tax Euh, rawatina secteur agroalimentaire boobu nga tudd maanaam wàllu defar euh, li ñuy lekk. Mm-hmm. dem ci biir. Mm-hmm. tey daanaka état wu Sénégal euh, dafa jël décision normes yi nga xam ne moom moo am ci wàllu boobu yëpp. Mm-hmm. maanaam maanaam ci leen lu war la. obligation la boo ko deful yoon dafay dal sa kaw. waa direction du commerce intérieur nag ñoom ñaar organisme d' inspection ñoom ñooy wër di ndax. ñu ngi respecté wala déet. Mhm. ñun ci wàll bi ñuy yëngatu mooy wàllu certification certification boobu euh, argument li ñu woowee argument marketing la. Mhm. pour ki nga xam ne mooy defar moom mooy jël décision boppam ñëw woo ko mel ni association sénégalaise de normalisation. Mhm. mu ñëw saytul ko produit am xool wax produit bi méngoo naa a yi wala déet su boobaa moom mu mën a sukkandiku ci loolu pour mën a gën a jaay loolu tam dina permettre consommateur bi bu ci marché bi mu mën a. Euh, maanaam tànn produit bi nga xam moo ko dul gaañ moom moo gën ci moom. justement ndax nga mën nga ñu listeel euh, quelques normes yi nga xam ne teg nañ ko pour euh, ku nekk daal di ci mesurer wu. alors tey boo jëlee secteur agroalimentaire bi. Mhm. xëy na du ñu ku nekk fi di lim dina métti trop. waa quelques normes rek. boo jëlee norme boulangerie norme sur le riz c'est norme obligatoire daanaka lépp lu ñuy lekk. Mhm. lépp lu ñuy lekk norme yi ci am ay normes yoo xam ne nii la yoo dañoo dañoo obligatoire. Mhm. boo jógee foofu secteur construction tamit même chose normes yi foofu en général dañ leen di def d'application obligatoire. Mhm. beneen bi mooy secteur environnement maanaam aar gàncax bi. pour aar gàncax bi tam bëri na normes yi ñu defar yu ci ëpp dañoo obligatoire boo duggee ci code de l'environnement dañ leen euh, tey euh, mu am tamit euh, domaine numérique muy informatique technologie ak information ak télécommunication ndax yéen association bi da ngeen ci intervenir. waaw biñ ci biñ daa yëngatu ci numérique. Mhm. yàggul trop. Mhm. yàggul trop mën naa ne ay ñetti at la def. Mhm. loolu nag li koy expliqué bëri na benn mooy numérique. développé wul woon trop fii ci suñu réew. comme mhm. euh, ci réew yu bëri d'ailleurs euh, beneen bi euh, mooy ne xëy na association sénégalaise de normalisation amuñu woon ay jumtuwaay yi ñu permettre ñu dugg ci waaye fi mu toll depuis trois ans tey monté nañ koy woowee comité technique boo xam ne liggéeyam mooy saytu wàllu numérique mhm. ngir defar ci ay normes yoo xam ne dina tax ba service boobu nekk service bu mucc ayib. Mhm. ñu ngi ci liggéey ak euh, ministère chargé des titres. ñu ngi ci liggéey ak mhm. ARTP di ci liggéey ak yi nekk ci mais tamit. donc wàllum maanaam yóbbu import export tey jii euh, agroalimentaire tey jii nan ngeen di liggéeyee justement ak ñoom. waaw euh, boo boo jëlee wàllu export export tey nekk na domaine boo xam ne maanaam. mënoo faa dem te sóoraale woo norme yi. Mhm. bañ nañ ko ba OMC nga xam ne mooy ci àddina bi organisation bi nga xam ne euh, moom mooy euh, dëgtal yi yi ñuy euh, maanaam yi encadré commerce international. Mhm. dañuy dañuy dañuy génne ay ñu xaatim ay ay règle yi wax ne pays yëpp maanaam réew yëpp seen réglementation dafa war a jóge ci ay normes. Mhm. norme yooyu tamit fi mu bu fekkente ne mën naa nekk bu fekkee amul dara lu koy tere mhm. norme yooyu maanaam dañu war a méngoo ak norme internationale yi mhm. moo tax ñun tey boo jëlee ASN ñu ñooy fii ci Sénégal ñu ñooy représenté Sénégal ci organisation internationale de normalisation suñu mhm. dem foofu nag ñu moo ñu permettre euh, non seulement suñu producteurs yi nekk fii nii seen ay préoccupation seen produit yi ñuy defar seen ay réalité ñu fexe ba ci normes internationales yi ñuy yi ñuy tëral ñu ñu ñu sóoraale leen ci waaye tamit moo ñu ñu am information ba mën ko indi fii pour suñu ay normes nationales ñu aligné leen ci normes internationales yi ci jàppale tamit ñi nga xam ñooy defar réglementation ba a bi du soreetu ak normes internationales yi ndax loolu boo amee organisation mondiale du commerce mën naa dal ci kaw réew mi loolu tey bu fekkente ne ñun dañoo bëgg une économie émergente xam ne ça passe par production agricole waaye tam transformation di et puis non seulement pour Sénégal ndax Sénégal doyul. Mhm. ay waaye di defar di yóbbu ci yeneen réew. pour ñu mën a yóbbu ci yeneen réew nag il faut que suñu producteurs yi. Euh, di respecté norme yi. Mhm. ci boobule ci le liggéey yan jafe-jafe ngeen di faral di jànkonteel. waaw euh, li ci ëpp nag manam mooy euh, information bi du àgg ci moral bi. Mhm. souvent mhm. moo tax moo tax ñu ngi def suñu kenn laaj ak di liggéey ak organisation yi nga xam ne ñoom ñoo ëmb producteurs yi. pour di leen gën a jege di leen jox information yi et puis di leen wax ne norme nekkul lu lu lu grave nekkul loo xam ne daf leen di sonal mhm. waaye dafa nekk loo xam ne da leen di permettre seen liggéey bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def maîtriser nañ ko ñu gën ko def ci ay euh, conditions yi gën a mucc ayib waaye itam permettre leen ñu mën a respecter euh, réglementation internationale mën a pénétrer marché international mhm, bu ma la déggee ngay wax dafa mel ni sensibilisation bi jàllul noonu ban année euh, lañu taxawal association sénégalaise de normalisation ba li nga xam ne mooy communication bi ba tey jàllul ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci secteur yooyu. waaw communication bi euh, des na waaye loolu liggéey la boo xam ne nekkul liggéey booy naan da ngay tàmbali tey suba mu jeex. kañ lañ taxawal association bi. Euh, association bi déjà li ko naam mooy institut sénégalais de normalisation. Mhm. boobu mi ngi am en 1978. doon def benn liggéey bi. doon def liggéeyu normalisation fii ci Sénégal. Mhm. bi ñu demee ba ci année vingt année deux mille yi. ñu gis na liggéey bi am na fu muy sooxee. te fi mu doon sooxee ñu jàpp ne euh, xëy na bokk na ci li ko mën a régler ñu dugal secteur privé bi euh, ci gestion bu normalisation. Mhm. moo tax ñu réformer normalisation réforme boobu nag. moo indi création association sénégalaise de normalisation. ci mhm. atum deux mille deux. deux mille deux ba léegi euh, association sénégalaise de normalisation naam mi ngi ci euh, mi ngi ci keppaaru ministère du développement industriel des réew mi mhm. organisation la boo xam ne secteur privé bi euh, ñoom ñoo ci organe de décision euh, monsieur Dione. merci merci Zina. El Hadj Abdourahmane Dione may fàttali ne yow yaay directeur général bu association sénégalaise de normalisation merci beaucoup monsieur Dione.